asalaamaaleykum mbokki spectateur rafetlu nañu ànd ñun saa su nekk si Sénégal 5 dalee na jàmm si xibaar yi da ngay daal di door rek lu doy waar xewee sa diwaanum si ñàkk Manga village bi nag nekk si diwaanu commune bu Thiety département bu Kolda xale ya fa doon sàmm nag ñoo fekk benn waay daal di ñàkk bakkanam dem sax ba corps bi daal di nëb lool ba yegg sa euh, jafe na lool nag ku ñu daal di xam ana kan la maanaam identité ma si saa si nag la nga daal di suul. askan wi nag jamono ñu ngi si tiis leneen si wàllu xibaar ginnaaw rek ba mu di plainte patron wam Afrique Capitale pour licenciement abusif ki nga xam ne moo di Gabriel kan nag ma ni ko on toog six mois yoo xam ne fayuñu ko ginnaaw bu mu daal duggee si coowal Ousmane Sonko ji sax mu daal di jàpp ni sax loolu tax mu daal di koy dàq patron bi nag di Marc Allan porté na ko plainte yóbbu ko si yoon jàpp ni moom Gabriel Kane nag da ko daal di tuumal te itam lu muy wax dala du si dëgg te moom sax nee na Gabriel Kane contrat prestataire la fa daal di amoon si diirub li nga xam ne que mu di ñeenti weer. donc ñi jeexe communication marketing ba ginnaaw rek bu coronavirus ba mu daal di jàlle moom Gabriel kan nag daanul woon ñëw bureau da te doon toog rek te du liggéey dara ba waral rek daal di koy dàq donc dàq boobu noo teg na ko fu leer moom ki nga xam euh, euh, patron am nag dina ko daal di yóbbu si yoon leneen si wàllu xibaar diffamation injure le film de l'arrestation de Nabou dans le bureau de son mari man ñu kon ki nga xam nekk moo di Nabou Dash si bureau jik ji ginaaw plainte yu beuri nak daal di dem si moom procureur bi nak daal di koy jotoon ginaaw ko ndati di tijjee enquête nak non nak si ginaaw sa la nga ko daal di jàppee si bureau dina nga xam nekk moo ji si wàllum almadi waaye euh, laata loolu rek Dash da don saga papa ji yaay ak jik ji yi enquêteurs yi nag dalal ko si noonu la ko daal di tegee loxo nag laataari ñu koy daal di jàllale yóbbu nag suwaanu fan xool exactement saytu ko maxa moom Nabou Dash ma ngi xelam Sophie Gueye mu nekk chroniqueuse émission gis-gis ci Sen TV nag moo daa di porte plainte ki nga xam nekk moo di Nabou Dash ak monsieur Merga nekkoon ki nga xam nekk moo di jëkkëram ba woon niir saaga yi nga xam ne itam mu koy daal di jëmale si ñoom leneen si wàllu xibaar lu yéeme moo xew si daanu mën na xun département bu Guinguinéo kenn ko ay atam toll si deux ans moo daal di xaru takk boppam naka noonu nag si euh, la daal di tëjoo si néegam nag mu daal day faatu tantam mi ñëw pour daal di koy woo si añ la ko fekk nag mu daal day faatu lu nu mel nag moom célibataire la amul woon dina xam ne moo di doom doon def mécanique du si atub 2000 la leneen na si xibaar l'autorité de télécommunication et des postes du RTB nag moo daal di jot lu toll si 345 plaintes ak réclamation commerciale jëm si ay opération téléphonique wala sax transfert d'argent ak télécommunication ñoom consommateurs yi nag jàpp ni yooyu de service des na lool ba waral daal ci porté ki nga xam ne que moo di plainte Free am 62 270 Orange 8 nag Expresso la si daal 4 la wéef daal di am ak poste nag moo daal di am li nga xam nekk moo di benn si wàllu wunu mel la leneen si wàllu xibaax lu tiis Mamadou Yaya Diallo nag benn dawalkatu camion moo ko daal di fàtt ba ay 4 heures du matin ci Pikine euh, moom di ki na xam nekk moo di Khadim F di chauffeur si moo doon daal di marche arrière nag naka noonu si daal di dalee si ko vigile boobu di ki na xam nekk moo di Mamadou Yaya Diallo ci si nag la daal di ñàkkee bakkanam moom ki na xam nekk moo di chauffeur si nag jamono ji teg nañ ko li nga xam nekk moo di loxo benn tiis euh, moo xew si diwaanu Kédougou kii nag dafa doon daal di mattu waroon am doom jaaroo ko si césarienne naka noonu nag lu toll si ñetti waxtu mi daal di xale bi mënut a daal di génn naka noonu la médecin yi daal di daggee dina nga xam nekk moo di bopp xale bu nu mel laalal ko hémorragie nii la daal di génn li def si xale bi naka noonu la daal bakkanam moom ak liir ba li ma fi doon lu gën a fësal xibaar mbokk yi wéy daal di ànd ñun Sénégal 5. Vito cocktail une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bisaab bi oh. oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak nekk ci emballage civilisé tour ak jus vito da ngeen am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison